abonné leen ci suñu YouTube ngir jot su nekk ay xibaar yu wér te wóor ci réew mi ak ci bitim réew jërë ngeen jëf ndaje mi waa Pastef woote ngir investir seen waaju Ousmane Sonko ci présidentielle 2024 yi ndaje maa ngay bëgg a suuf li tax Sud Quotidien mi ngi ñu koy wax ci xëtamu njëkk meeting d'investiture bu Ousmane Sonko bi gornooram Dakar di Alhassane Sall neen du fi amee ndax day bañ ko turbale ordre public bi Vox Populi nañu li nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ko keroog mu di suñu ko bàyyiwul mu bokk ci élection présidentielle 2024 yi réew woote woon ci ndoxteel weeru juin gi ñu génn ak manifester yeeg yi ñu juróon ci dëkk bi Vox ngi ñuy wax it ne mbooleem lu di manifestation politique yu gaay yi namm ci week bi yépp la préfet yi aaye mu di bu waa parti Pastef bi di waa Benno Bokk Yaakaar Le Quotidien bi ne ci xëtamu njëkk ne gouverneur bu Ndakaaru tëj na Dakar aaye na lépp lu di meeting ci dëkk bi journal L'As gis ne defante gi Ousmane Sonko woote gouverneur bu Ndakaaru fekk si ne ko ci le mandat bind ne investiture bu Ousmane Sonko bi saboté nañ ko journal Tribune jiñ ko Macky Sall yéenekaay bi nee nañu Macky Sall moo aaye investiture bu Ousmane Sonko bi teg ci moom journal Tribune di ñu xamalit ne gouverneur bi jël dogal bi nee na kawo gi Ousmane Sonko digee ci réew mi moom lay bañ mu am li am Walf Quotidien nee na ñu waa kër Ousmane Sonko yi di waa parti Pastef awuñu yoonu def lu gouverneur bi wax l'observateur di ko dëggal ba di ñu xamal ne ñoom waa Pastef les patriotes dëkk nañu gouverneur bi akub dogalam nee nañu mbindeef mënul tee ñu investir Ousmane Sonko te mbindeef it mënta tee seen waa ji Ousmane bokk ci élection présidentielle yu 2024 yi l'observateur mi ngi ñuy xibaarit ab déclaration bu njiital parti Pastef ngoon la ñuy xamee lu leer ci ndax ñuy dem ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye investir Ousmane Sonko am déet investir gi am ci dëkk bi jamono ji journal bés bi le jour nee nañu mooy ni force de défense et de sécurité yi jatoo nepp soccet investir mbedd di dëkk bi li xewoon ci weeru juin gi ñu génn ak kaw gi Ousmane Sonko ci dëkk bi yéenekaay bi nee nañu ci la gouverneur bi sukkandiku ba tax mu ne duñ fi autorisé benn manifestation politique ci dëkk bi suba ak ginnaaw suba suba ci alxames na ne lu nekk mën naa xew ci dëkk bi ne bu Ndakaaru nee na kenn du fi lang meeting bàyyi bi sànni na waxam ñu wax ci waxi ki war a doon candidat Benno Bokk Yaakaar ci présidentielle yi 2024 yi enquête nee nañu ñoom waa Benno jamono ji ñoo ngi ni xóot ubbi seeni nopp di déglu Macky tey ngir xam kan lay tànn bu ñu sukkandikoo ci ki muy wut nan la war a mel enquête gis na ne amadu Ba moo gën a jege doon candidat bi Macky Sall di tànn képp ku président Macky Sall tànn na ko askan wi yëpp jàppale waa coalition républicaine sàmm suñu réew ñoo ko wax ci xët mu njëkk direct news yéenekaay bi nañu conférence des leaders bu coalition républicaine sàmm suñu réew gi directeur de l'emploi Pape Modou Fall jiite gannaaw bi ñu njukkeele président Macky Sall sargal ko ci dogal bu rëy bi mu jël ñoo ngi sàkku ci sénégalais yi képp ku Macky ko fi ne candidat Benno Bokk Yaakaar nañu ko jàppale jàppante am na ci diggante Adji Sarr ak Pierre Goudiaby Atepa ubbi Les Échos yéenekaay bi nee nañu Adji Sarr moo yóbbu ba di ko laaj juróom fukki million ndax nee na Pierre Goudiaby Atepa da koo sosal fukki fan ci weeru août yéenekaay bi nee nañu ca la seen face à bu njëkk di am li quotidien nañu ab citation directe moom la Adji Rabi Sarr yónnee Pierre Goudiaby Atepa wax ju rëy ji Atepa waxal Adji Sarr bu mu métti ko l'observateur mi ngi ñu koy wax yéenekaay bi nañu keroog le 11 juillet 2023 moom Pierre Goudiaby Atepa dañu ko invité woon ca télé bii di 7TV ba muy wax ba yegg ci mbiri Adji ak Ousmane Sonko Atepa dane am na benn bés muy tukki ak benn femme buy liggéey ci ONG buy taxawu jigéen ñi ñuy mittital ak di Atepa ne la ko femme ba wax moo di Adji Sarr da ko doon manipuler sàcc na xaalisam sàccit benn jaaro jamaam waxam joojee moo metti Adji mbir meneen mu mitti ba yegg ci lool mi ngi ci libération gaal gi këpp woon keroog àllarba ci njël ca Ndar doon yóbbu juróom fukki nit ak juróom-benn yu bëggoon dem Espagne yéenekaay bi mi ngi ñuy wax ne ña ca faatu toll nañu léegi ci juróom-ñetti doomi aadama ndax am na ñeneen ñaar ñu faatu démb ñu fekki juróom-benn néew yi ñu génnewoon ci géej gi li ci gën a doy waar nag libération nee nañu mooy ci même jour bi marine bi jàpp nañu ca ndar googee ay boori 11 ci guddi gaal gu doon dem Espagne juróom-ñaar fukki doomi aadama ak benn di 71 personnes ñoo ca newoon ci ñoom ñaari jigéen a ca woon